sa vision éco économique lan la. man wax moom lan mooy sa les les grands axes de son plan de développement économique. économique mooy industrialiser Sénégal. comment ak développement agricole. comment mais ah. comment bon après dinaa ko yaatal. non fi mu nekk nii fi mu non mënu mënuma taxaw ci programme bi yëpp gars yi dañuy copier. non de non may ma non non non vision bi mënuñu koo copier may ma si. non vision dama def dama def benn déclaration bu ndaw. may mën a barke démb dama def benn déclaration bu ndaw ma wax ci immigration irrégulière bi joxe ñaari solution ñett ma xëy suba ku def émission taxaw benn ndaw moo utoo ko métier. non mais non laisse-moi finir waaw bàyyi ma bàyyi ma daanaka man man ma toog nga naa man dañuy copier mënuma wax bàyyi ma daan non j'ai pas j'ai jamais dit ça non nga wax ma lan mooy sa sa programme de développement sama programme la sama programme ah. sama programme ci économie Sénégal dama ne la dëkk day am industrie su bëggee développer d'accord mais comment on construit ces industries mais mais attends euh, oh, oh, c'est c'est tout un c'est tout un plan bu ñu war a mën a waxtaanee bu ñu wax a mën a defar waaw xajul ci émission may mën a. mais si non xajul mën nga ma jox les les nu mu tudd quelques ébauches de ton de ton programme de développement industriel mais su ma naree industrialiser dëkk bi développement agricole su ma la waxee loolu may mën a mais wax naa la que. aksi yu mag yi bàyyi ma daaneel bàyyi ma daaneel s'il vous plaît bàyyi ma daaneel wax naa la aksi yu mag yi. may mun a ñun amuñu agriculteur paysan la ñu am parce que ñetti weer la ñuy bay pourquoi mënuñu bay toute l'année et comment la ñuy bayee mais nañ uti ay machine fexe irrigation bu doy am fi mais su boobaa dinañ bay toute une année. may mun a tant que gars yi xam nga xam nga jéem. jéem volonté la. tubaab mécanisation de l'agriculture merci merci beaucoup tey suñu ah? xaaral ma daaneel bàyyi bu tontu am ma place bàyyi ma daaneel s'il vous plaît. tey il faudra impérativement impérativement que état du Sénégal xam na ñetti yi mooy développer réew mooy ndaw ñi am xëy nit ñi di lekk ba suur autosuffisance alimentaire ñun dañ ko war a am mais mën nañu noonu nañu amul am nañ géej muy peche kan mooy ñëw di jël suñu jën yi di ko yóbbu kuy jël suñu jën yi di ko yóbbu xam am nañ géej kon ñun war ñoo manqué jën. non dama waaw bàyyi ma daane dama Casamance mango bi day yàqu ñu koy sànni suñu bëggee li ñuy dundee yëpp may mun a ñu koy importer kañ la ñuy avancer te état bi soo xoolee suñu jógee budget Sénégal wu ci ëpp douane moo koy defar moo ko moo mooy mooy mooy c'est que c'est dëkk boobu doxul may mun a soo demee bitim réew école publique moo ëpp valeur école privée. fii Sénégal école privée moo gën a baax école publique nu ñuy développé. alors les gars euh, yetasaay bi nekkoon membre de l'APR du bi euh, yetasaay boobu il est toujours à à l'Alliance pour la République euh, c'est vrai il a soutenu Macky Sall il était dans le sport euh, moom moo nekk actuellement au niveau du collège des délégués de l'APR Euh, des délégués de la l'ARTP yettasaay bi euh, parce que dañ ma dañ ma ne euh, milité nga APR créé woon nga mouvement de soutien pour président Macky Sall je présume que du yow beneen yettasaay bi la mooy Boubacar non man ah. li ma defal Macky Sall xam nga lan hmm. mooy lu citoyen war a defal président cest à mu gis njabootam ñu soxla ñu sollicité moom ma ma jàpp ci def naa ko du benn ba ginnaaw suba su ma njabootam sollicité woon mu nekk fi dama siy jàpp dégg nga ma may mun a li ma wax ne weer na jamais été avec Macky non je je je sais moo tax d'entrée de jeu j'ai j'ai j'ai j'ai fixé. Euh, les limites entre les deux maintenant maintenant pour revenir euh, ci euh, question yi am solo yi ñu doon waxtaan sànq may mun a dama ne éducation pour tous santé pour tous may mun a wow daf fee war a am c'est le c'est le minimum. qu'un État peut offrir à sa, à sa population. mais mais xam nga Yatassay pour man vous dans les dans les énumérations euh, vous dans les constats li ngay wax ni Sénégalais yëpp xam nañ ko te ku am yéene diriger réew da nga war a am vision te waroo ragal nga partager vision parce que man tey su ma nee 7TV c'est une chaîne d'infotainment mm-hmm. laa nar a créer su ma nee infotainment sama vision la. Mm-hmm. la la ma nar def ci infotainment su ma ko doon wax fii ba suba. Mhm. ku ko ku moomul vision bi. Mhm. xëy na du ko mën a mettre en œuvre man ni ma mhm. koy mettre en œuvre. xam nga euh, Macky Sall dafay laaj réew mi mu indi yoonu yokkute. dans yoonu yokkute mu laal pàcc yu bari wax ci vision Ousmane Sonko. dafa indi dafa ne dafay laaj réew mi. mu indi livre tuddee ko la solution. ci livre bi. mu détaillé vision am mm. def def ay constat am mm. def diagnostic am détaillé vision am mm. wax nan la fay nan la fay nan la fay ñëwee mm-hmm. Ousmane Sonko bokk na ci ñu doon mu naan le Sénégal a les moyens de tirer ses propres de tirer beaucoup de ressources en interne euh, y a beaucoup de secteurs yoo xam ne euh, fiscalisé wuñu ko euh, y a beaucoup de niches euh, yoo xam ne mun nañ fa jëlee xaalis pour financer voilà pour financer notre vision donc yow tam boo ñëwee nga ne yow tu aspires euh, à la magistrature suprême tu as tu une vision mais war nga mën a wax sénégalais c'est facile de dire aux gens il faut industrialiser moi-même je peux le dire je ne suis pas euh, politique ni mm-hmm. ni candidate mm-hmm. il faut industrialiser comment mm-hmm. il faut développer l'agriculture comment Thione Niang toog na fii démb il a détaillé mm -hmm. comment il compte développer l'agriculture mm-hmm. euh, comment il compte faire pour que ñu mën a euh, paysans yi mën a jaay li nga xam ne moom mooy seen euh, seen i seen i récolte mm-hmm. voilà mu détaillé vision moi c'est ça que j'attends et c'est pour et que euh, je donne la chance à des gens yoo xam ne ce ne sont pas des hommes politiques professionnels mm-hmm. ñu ñëw toog waxtaan ak sénégalais yi parce que hier on a fait une émission avec Thionia j'ai reçu beaucoup de retours les gens ils ont aimé la façon dont il a expliqué sa le, sa vision parce que booy temps wuñ la mhm. je félicite euh, di ko ñaanal li mu bëgg yàlla may ko ci lu kawe njortam mais mun a j'ai dit tout à l'heure à l'entame propos dama ne la euh, dëkk soo ko bëggee développer day am industrie di wax naa la ko sànq ma ne la soo paree nga ñëw ci développement agricole kon maa ngi développé d' nga ne maa ngi développé. mais nan ngay defee industrialisation bi soo xam nga soo ma dégluwul. Ah. du ñu mën a avancer. dama ne la d' accord nga ne dama ne la dëkk soo ko bëggee. développé parfaitement d' da ngay am industrie ma ne la soo amee industrie pare da ngay ñëw ci développement agricole wax naa la lii tout à l'heure développement agricole c' quoi ma ne la il faut ñu aspirer à am autosuffisance alimentaire wax naa ko sànq noonu. donc ça veut dire que je réponds à. so, on finance mais yow nga bàyyi ma ma ma poursuivre. Mhm. donc il faut nga nangu ne yow man maa ngi tontu sa ay questions par rapport ak li ma développé sànq. maintenant ma ne la dafa am secteur yoo xam ne ñooy doxal réew te ñun yàlla dafa dogal ne à part ressources humaines mooy ndaw yi ñu am nii may mun a à part ressources humaines mooy ndaw yi ñu am nii agriculture la ñu yaakaar. te agriculture Sénégal ñun amuñu agriculture ay paysans la ñu am kon soo ma ne nekkuma di la tontu wala ma di développé daf may jaaxal ñun on n'a pas d'agriculteur on a des paysans parce que ñetti weer la ñuy bay su Sénégal ak expérience politique bi ñu am ak ressources yi ñu wax tey naturel am nañ ko ñun ressources yi ñu wax ne tey am nañ ko Sénégal waxoon na atteindre autosuffisance alimentaire et comment atteindre votre suffisance alimentaire may mun a dama ne la dama koy citer sant exemple ma ne la Casamance mango yi ñu ngi fay yàqu soble ñu ngi koy bay fii pomme de terre bi ñu ngi koy bay fii dëgg la du dëgg mais dama ne genn waa yi ñuy lekk yëpp dañ koy importer réew moomu na lay développé suñu waxee budget état ñu ne li ci ëpp fiscalité ak douane moo koy joxe loolu ma une inflation. Euh, produits yi Sénégal yi soxla donc nañu dellu à la base mais mën a mun nit mënu laa wax lu gën a leer li ma la wax nañu dellu à la base mooy ñu fexe li ñu am muy mbay ñu fexe jël concentration bu bari def ko ci mbay mi fexe euh, am ay agriculteurs ñoo xam ne dañuy bay neuf wala dix mois sur douze li ñuy bay ñu bàyyi ñu consommer ko fii amul benn dëkk boo gis si àdduna ñu ne la développé na te amul autosuffisance alimentaire xoolal Rwanda bu Paul ak Paul euh, Kagame qu'est-ce qu'il fait bi muy commencé dañ ne mu wéeru ñu ne ko li ngay projet yi nga teg nii fan nga koy jógee mu ne fii tey dem nga xam nga situation Rwanda passé na développement sax kon damay dellu si lu ma waxoon sànq. may mun a tant que système bi ñu yor nii changé wuñ ko Sénégal bu développé duñ ko sax dégg am nañ yoonu yokkute am nañ guana am nañ PSE am nañ nàngam la population sénégalaise souffre les jeunes n'ont pas de travail donc ana le rôle de l'État dans tout sax loolu moo metti ñëpp ba man man sama concept la un jeune une solution man mënumaa l'emploi ne se décrète pas mënumaa xëy rek ne xale yëpp dañuy am liggéey no am na feneen am na fu bëri fu ma war a mën a jaar foog ma sensibiliser xale yi waxtaan ak ñoom may mën a Sénégal ñëpp ay littéraire lañ war ay gestionnaire technique science ñi ko fi ba ñi ñi fiy am bag boobu bëriwul donc ni ñuy amee ingénieur ah dama ne ni ñu koy amee. may mu na massification des des des filières techniques et lu bees la te day doo ko commencé. sax ba fii ba ba fii ba fii ba deux mille vingt six. waaw ay bac elat yooyu doo dégg déggatu ko am parce que kenn bëggatu ko def kenn bëggatu ko def.